donc yenn saa yi am na lu yëgul faykatu sapeur pompier la ndax nag dina juum sàddi benn sac cigarette mu lakk mu lakk daay xaw mais alors euh, cour constitutionnelle mu nekk un rêve qui se réalise pour certains à chaque fois bu ñu amaan Euh, problème avec le Conseil constitutionnel avec l'interprétation des textes avec la prise en charge Euh, des recours ñu ne bu ñu amoon cour constitutionnelle euh, kon du ñu jànkoonteel liñ fi jànkoonteel yëpp euh, en dernier nu mu tudd la la la la dernière le dernier exemple c'est lors des élections de mars 2024 il y a eu benn série fii benn feuilleton conseil constitutionnel assemblée nationale exécutif est-ce que cour constitutionnelle dina régler toutes les suspicions tous les problèmes yi ñu daan am ak conseil constitutionnel xam nga loolu li nga ci jàpp rek mooy ñi koy wax bari na ci ñoo xam ne ñii dama ko yaakaar rek nag njortal rek njort nag bu bon la yàlla na ma yàlla baal parce que maa ngi ni lu baaxul boo leen laajee fi am cour constitutionnelle duñ la ko wax ensuite ñun ñun bu ñu bëggee changer suñu yëf dañ koy changer à l'intérieur à l'interne ci suñu biir mais du ñu calculer lu ñuy def dara ñu ne nañ ko def magistrat yi fi nekk ñoom de l'exemple du Niger lañu lañuy joxe. ma ne anamu fu ñu toll. instabilité le Mali defoon nañ ko changer seen constitution ne duñ ko mën a changer lu dul par référendum. ils ne sont même pas capables d'appliquer les décisions yi nga xam ne dafay jóge ci CEDEAO parce que dañu CEDEAO dafa obligé en un certain moment que Cour des am fu nekk. duyoma mais ñoo mënuñu ko am parce que chaque fois amuñu moyen pour modifier seen constitution lu dul par voie référendaire moo lay woon ne excès baaxul. la cour constitutionnelle ñu koy wax yëpp dañ ko bëgg a jéggaani feneen mais dama ne boo dajalee magistrats yi dajale avocats yi dajale huissier de justice yi dajale quelques journalistes ñoom rek waxuma la ay conférence populaire yi ñu wax nii ñoom ku nekk bu indee apportam ñu indi lu bees lu noonu la ñu avancé lan moo indi conseil constitutionnel en 92. waxtaan. nous avons fait 60 ans ñu ngi am indépendance 60 il a fallu 32 ans. pour ñu modifier armature boobu indi conseil constitutionnel am na lu mu jur te li passé ni dama la ci jël ñaari exemple rek laay wax benn bi man la benn bi lay Matar Diop la pour moom dafa trouver démocratiquement que institution yi ñu ngi marché parce que il y a eu un jeu institutionnel boo xam ne président de la République def na li mu bëggoon def indi na loi assemblée bi am na benn loi boo xam ne ñoom député ñoo ko defar moom président ci paleem yu muy recevoir ay nit mu ne leen yéen jàppale leen waa PDS lu si yoonam ci proposition loi jàmbur sauf que dañ ko yónni jox ko texte bi mu xool ko parce que obligation la dans la procédure mais mënu ko téye mënul arrêter procédure bi mais dugal na ci kàddoom loolu moo tax ñoo am majorité boo ko jàllale mais opposition bi joué nañu seen rôle attaqué ko conseil constitutionnel arbitre na pour Ablaye Matar Diop loolu mooy les jeu institution les institutions marchent parce que elles s'affrontent pour trouver une porte de sorti et les élections ont eu lieu mais très bien maintenant quelles ont été les décisions du conseil constitutionnel man loolu laa d'accord parce que conseil bi dafa am ay décisions yoo xam ne dafa ko jël pour man non seulement c'est arbitraire mais moo tax li ci am yëpp te ñu wax ko moo tax ma jàpp ko donc pour ces assises là comme loolu moo doon question bi et notamment le conseil supérieur de la magistrature et la présence du président de la république président de la république dafa war a am moyen yu mat pour jox liggéey bi nga xam ne moom lañ ko jox mooy yenu réew mi yenu ko yenu réew mi di ko contrôler assurer sécurité am représenter ko à l'international utul ko ay moyens yu mu dundee di surveiller moyens yooyu naka lañ koy utiliser kooku bu fekkee ne joxuloo ko prérogative yoo xam ne dafa mën a ubbi bëtam di xool ak di xool le di dégg ak di déglule di gis ak di gisle mais c'est pas la moo tax dafa war a nekk euh, et li ma la wax léegi mooy constitution yi moo ko permettre mu war a fa toog dara maintenant li ci des seen biir a war nañ ko mën a régler